le promoteur des promoteurs jërëjëf mbokk yi seetaan wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne mbokk fii ñu ngi fii ci arène Adrien Senghor ki ñu fi woo di Djilass Production ndeysaan li traditionnel la mise bi un million la xale yaa ngi ñëw am na ci mbër yoo xamante ne xeebuñu un million yéemuñu dix millions làmb rek moo leen yitteel sëñ Bas moo tax ñu ñëw fii ànd ak wasaare làmb xool ndaanaan yi nuñ dugg see ak Djilass nan la def ci journée bi tey. da ngay wax de ak man ñëppay wax. sëñ Baskaay dañ ko koy nan dañ ko bi maa lay nuyu. maa lay nuyu Diop. waaw. ngi ci jàmm. ça va noo tudd. <laughs> man Ngor. Ngor Ngor. waaw. nekk ci port bi métti na. waaw métti na tuuti ah. mais xam nga rek da ngay xaw a comprendre quoi comme ñoo woote dañuy muñ rek lu waaye indi moom waaw ah, mooy loolu daal ah, dañ ko jéem a gérer quoi balaa bi jàll. sa relation yaa Djilass Production mu dénk loolu mel nii ci porte bi du lu ndaw de. loo kii sama doom bàyyi la kii ci lépp lu mu nekk man maa ngi ci lu mu munti lépp nag laa la wax maa ngi ci lépp ci moom. mooy man maay moom incha allah. jaajëfati. ndeysaan. promoteur bu mag baa ngi noonu. kii moom làmb ji kii. jëriñ noo def. Eh? noo tudd. man tabaski. tabaski ñaax. maanaam yow da ngaa indi mbër wala ci làmb ji nga ko. làmb ji rek làmb ji rek mu saf rek. tey moom euh, yaakaar naa ne tey ñu gis lu ñu musul gis ci làmb. tey moom bu ko seetaan lam seetaan bu ko bugul seetaan seetaan. waaw ndax ñun jilas la 100 pour cent boo xoolee t-shirt bi sax nga xam ne jilas 100 pour cent jilas la waa jilas ñoo xewle euh, jilas production le waa jilas yëpp dañ ci nar taxaw bu soobee yàlla. sa relation yaag Doudou la. Doudou man ak moom daanaka man maa doon yor saakam bu muy bëre bu muy bëre ci poids léger ba poids lourd man maa yor saakam lii du hasard besam sama bés la gisoo tey nii nii superviseur la mais mënu ma superviseur. tey ci organisateur yi laa dugg ndax Doudou. mbër la woon daan na daan ay ndaanaan. mbër kamil la woon champion international moom lañ doon woy assurance assurance lañ doon woy ndax jël bu waaw lu leer laa la wax nii. après nga xam lépp. ndeysaan leneen xew na ndeke làmb ku ci bokk rek am na wàll woo féete ndeke Doudou promoteur la. waaye bu duudu ndeke mbër la woon boo xamante ne nekk na ci làmb sëñ bi noo def. waaw ça va oui. waaw yaa ngi am jàmm. waaw maa ngi si jàmm bari. noo tudd. Abdou Ndong waaw. John waaw. Ndong Ndong. Abdou Ndong. oui. ndeysaan sa relation yaag Djilass ñëw gis nga nekk ci liggéey bi macha allah nekk ci yaag duudu lu ngeen seet. waa duudu sama grand la sama bag la ñu ñoo bokk ba ñoo bokk ndey waaw. sama grand sama lépp la waaw. waaw François moom duudu moom. amuñu feem quoi Doudou moom waa Jilaas la waa Jilaas la ñun ñëpp vraiment moom waa vraiment woy merci waa jërëjëf. promoteur baa ngi noonu Jilaas production moo ñu woo ci terrain adresse Senghor ndeysaan ndaanaan yëpp njort nañ ne dinañ ko fi gis mu jël bis bi dara jaal ko képp koo xamante ni bokk nga Jilaas dara jaal ko yax yi jóob yi ak saltige bu mag moom Djilass production maa lay nuyu. nuyu naa la Djily. noo def ak ñu ngi nii rek ñu ngi nii ci kawam rek. organiser lu mel nii daa mel ni metti na de. waaw métti na méttiwul. ndax ñun lii mooy suñu cosaan. lii lañ bëgg suñu xol. lamb ci xol bi la ne man dama bëre ba bàyyi bëre. dama tekki sama ngemb mais bàyyiwuma lamb. ndax dama doon bëre tekki sama ngemb léegi di tëgg ay lamb. kon fierté bu mag la ci man loolu moo la war a woon ne man dama koy dund dama ko bëgg. da nga koy dund nga jël mise un million ko xale yi fii ban yëg-yëg nga am ci lool fierté bu mag ndax lamb avancé na lamb bu demee bu lamb am na jamono yoo xamante ne sagar la woon mais buñ demee bañ ciy teg ay millions fierté la moo tax xale yi dañu war a góorgóorlu te xam ne doole day gane si ci nit rek buy dox aussi du tàggu moo tax boo ci nekkee man démb bu ma démb tey mu métti de. dégg naa assurance lañ la tuddee woon. wóor nga def assuré koo jàpp mu xool fu muy tëdd. <laughs> en tout mënuma fi woon de mais nag kenn yabuma woon de mënuma fi woon waaye kenn yabuma woon waaw mais nag amul problème yalla baax na ñu dem ba ci kanam rek yal na yàlla may jàmm. Ndeysaan promoteur la boo xamante ni ku baax la ubbil pontam ñëpp képp ku bokk ci làmb ubbil na la buntam moom duudu mu nekk ku baax macha allah yombalal ñu liggéey bi loolu ñu koy sant bu baax di ko gërëm sëñ Bass yi ñu xool. xaaru dara lu dul journée bu am grand noo def. grand bi noo def. sant yàlla bu baax. baax yaa ngi am jàmm. sant alhamdulilah. noo tudd. Saliou. Saliou. foo jógee. Dalifor. nga ñëw ngir seetaan si lamb simple wala da nga am mbër. dama ñëw pour seetaan si lamb simple. amateur lamb. amateur lamb la waaw. bëri rek dañ ko bëgg moom waaw. dama ci bu jotee. làmb amul nooy jotee nii bu dimanche jotee ah, moom bu ñu añee moom làmb rek la ñëw seetaan soo amul dañuy toog mais boo toogee làmb amul bu ma toogee làmb amul damay wét. damay wét làmb rek moom dañuy dundal ñun. kilifa gi noo def. ah Aïcha maa ngi maa yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah. tur mbër. waaw Cheikh da ngaa ñëw ngir bindu si wala da ngaa ñëw pour seetaan. mooy damaa ñëw pour dagg bi rek waa seetaan. lu tax loolu. sama mbor mooy bëre quoi. ndeysaan sa mbër. waaw kuy sa mbër. Babacar. Babacar. waaw Babacar man. Babacar Tine. ndeysaan Babacar Tine. waaw. waaw moo tax ma ñëw pour seetaan. waaw incha allah waaw di ko ñaanal la. di ko ñaanal mu jël drapeau bi rek. waaw. jaajëf jaajëfati kilifa gi noo def. jaajëf maa ngi fi kër bi. Saliou Faye. waaw. waaw waaw. rek Fatick rek. waaw Biram Faye kunkung ñu ñu ma fi ni quoi. fii moo ko moom. Biram Faye. keroog koy da koy jël waaw carrément. da da tey waaw. mu ngi ñëw mu ngi ñëw. kon baax na jëndal billet ma waaw. mais 1500 laa ci biir. 1500 waaw. Ah. maa lay nuyu. maa yaa ngi mbër maa lay ziar. lu bari. Atou Junior ci loo ne. maa ngi sant jili da ñëw pour bëre si wala da ñëw pour seetaan si. non dama ñëw pour bëre si mais dama ñëw ñu ne baare nañ quoi. lu tax ñu baare. ah nee nañ du ñu bind poids léger ndax fii xaw ma yàgg na poids léger mosuñu ko jël cinq ans ngi nii. Ah. waaw. waaw loolu la ñu wax de ci seen i wax. kon Lour daal dong moo mën moo mën a bindu tey. ah loolu la ñu wax de ñoom ñu ngi nee de gars yi ngi ne loolu la ñu wax waaw. tey da ngaa amoon yéen a ñëw wane sa bopp. waaw loolu laa bëggoon te maa ngi si ba léegi nii. ñaata kilo nga. sama kilo yi bàyyi ko foofu rek. yow mais aatu ëpp nga 80 kilos. nañ waxtaan. waaw ëpp naa ko ëpp naa 80 bu matee bu mu ëppee 80 kilos rek nekkatul poids léger poids lourd la. ah ñii daal seen bi moom kenn xamul lan lañ bëgg instant daal dañoo bëgg a beddi poids léger yi mais anyway ah, lu ñëwit ñu xam ne loolu la yàlla dogal daal waaw. a ah, mbaam daal gàtt na lool waaye ci jur gi la bokk. ndaam seen a ngi noonu. <laughs> mbër sa mbër na ngeen def. waay sant yàlla bu baax sa waay ku ngeen àndal ñun ki lañ àndaloon booy bii ak keneen. mbër noo def. maa ngi fi. noo tudd. Bébé Diène. Bébé Diène. nga nekk. waaw da ngaa ñëwoon pour lan danga nga ñëwoon pour bindu. wala da nga ñëwoon pour seetaan. non dama ñëwoon pour bindu. waaw léegi luñ la wax léegi laa ñëw moom. waaw nee na po nee na poids lourd la ñuy bind ñu bind poids mais poids léger dafa am xam dafa am lourd am léger. léger amut luur moo am pourquoi pas nga bañ a nga bindu ci luur yi. Ah. Ah. la gars di bañ. saa yi gars yi ñoo arrêté nee na bindu bindu léger. ñun ñun ñun nangu nañ pour dugg ci poids lourd yi. waaw waaw mais mais mais mais ñoom dañoo baare quoi. mais fii jàmbaar bi da ngay gis fii poids poids léger bu dugg si biir luur yi. defal ay bagage bu ne cur loolu du yow. ñëpp ñëpp ku dul yow sax war nga ko kii waaw kon nag bu buñ taxawee fii naan duñ bind poids poids léger moom ndax ay lourd la ñuy bind te lourd yëpp ci ci léger lay njëkkee moom loolu day day day xaw a doy waar xam nga mais ah ñoom comme noonu la ñu dafa bind quoi looloo fi war a jeex boo ñëwee ci laam ñu lay ay poids lourd ak poids léger loolu dañu ñun ñoo ko war a xeexal suñu bopp sax laam looloo fi jeex boo gëmee sa boobu ba utul licence boo ñëwee nañ la bind. fii da nga fay gis. lan mooy secret di toroxal luy. ay base dafa war a jeex ak i chaise ku ne mun na leen a luy. waaye ay nit kenn mun leen a luy. mbaam gàtt borom Djilass production voilà exactement ndeysaan lamb ji foo sànni mbàtt mu tax bi loolu la nit daal boo ñëwee ku am licence mbër nga licence ndax licence boo ñëwee renouveler woo sa licence dañ lay ne demal nga renouveler ko cinq mille cinq mille waaw xaalis ñëpp koy liggéey boo ñëwee ngir bëre nañ la bàyyi nga bëre loo am nga xam ne yàlla la ko may mën ngaa ñëw doon poids léger bëre jël dara bi man ngaa doon luur ñëw bëre jël ko mais affaire bi nag. yow ni ma ni ma déggee nga wax mooy ndam yàlla moo ko yor. voilà mais ñoom buñ ko jàppee lool rek war ñoo sonn quoi l'essentiel boo yoree sa licence ñëw rek nañ la bind. tudd. man Bas laa tudd. macha allah sama waajee Basiru la tudd. Ah. mais macha allah kàddu yi rafet na rafet. jaajëf waay. jaajëfati Serigne Bass boo gisee mbooloo mi dajaloo fii yëpp nga xam ne macha allah Djilass production tëgg na journée bu mag waaye rawatina mbooloo mi nga xamante ni ñëw nañ fii ci làmb ji di Adrien Senghor mbooloo mi bari nañ macha allah ñaari rang ñoo fi nekk sëñ Bass te rang yi yëpp rangu gisee la rang bi nag laa xamul fu mu jëm sama waaj ji noo def maa ngi lay siyaar. naka yaa baax. maa ngi am jàmm sant alhamdulilah waaw. tur bi naan la. Moustapha Diouf. fi nga jëm ni fal la ci biir yi la wala. waaw la waaw. Ah, da ngay jënd billet da waaw. amaguñu billet. non ok waaw. am billet ba pare fu muy taxaw. fa la ngay taxaw ci biir nga taxaw ci nga da ngaa ñëw seetaan si la. am na waaw. salaam waaw. koo jógee. rek walaay. waaw. bas loolu Fissel Mbaye daan na jóge ñëw fii di seetaan si làmb na ngay tey sant bi waaw may doxal. li la si enveloppe bi lan la. affaire lamb la rek. affaire affaire hmm, lamb la rek. affaire lan lamb village à Niakhar quartier Mbarat quartier bu ñuy wax Ndangaan waaw bu ko ma bëgg ko jox mbër yi maa ko organisé waaw. li traditionnel. waaw li euh, bi bi. bee bi rek moom dañ koy yombal gars yi yi. cinq nag lañ tegu quoi waaw cinq nag lañ tegu waaw ñaari drapeau la poids léger yi mu ngi nekk ñaari nag poids lourd mu ngi nekk trois nag waaw. fan la ba dëkk. Euh, dëkk bi Mbarat la mais à quartier bu ñu wax Ndangaan la ñaaxar boo fa bëggee dem ñaaxar ngay jaar après nga laajte Mbarat après boo ñëwee ba Mbarat ci quartier bi quartier bi Ndangaan la tudd quoi waaw. noo tudd man Ousmane Ndiaye la tudd mais bu dee ci àll bi ci waru lamu ñu may woowee borom àll bi. borom àll maay Gaynde Njaay maay Gaynde Njaay gaynde boobu booy looy def fi bas bu yéexee du booy looy def ah damay combattre si tey caatu Dalifor waaw caatu Dalifor waaw bind ko ba pare non damay caat ci ba loolu nga fa bàyyi mbooloo mu bari ñu nga fa di aalu ku ne ne bind li CNG bi bind nañ ma waaw dama ñëw rek ñu bind ma waaw joxe naa ko waaw waaw waaw maa ngi dugg léegi kon baax na Thiatou Dalifor la boo xamante ni macha allah bàyyi leen ko xel ci làmb mbokk yi fii rag bi di dexee <laughs> xaalis baa ngi bas siif siif jëri yaay xaalis da lu demee <laughs> ndeysaan làmba ngi noonu rang bi rangu lan la grand maa lay ziar bu baax a baax delloo ziar bu wér noo tudd Mbacke Mbacke rang bi rangu lan la dañuy dagg ticket dañuy dagg ticket ticket oui si incha allah incha allah jaajëf waay incha allah waaw jaajëf waay. foo jógee. man yoof laa jógee yoof incha allah. Dóor dëkk Malick Niang démb am ngeen ndam bu rëy waxale yoof yaa nga noonu. macha allah. tardé rek tardé rek. ah bëriwul. damaa tardé. ah loolu kenn mënu ci dara. waaw loolu kenn ci dara. mais loolu xoolee ba moo woon ndog-ndog moo tax ma xaw a tardé mais yoon amul ci benn lamb yaa ngi suñu kanam mooy loolu yàlla baax na mooy loolu bonne chance. waaw ah, waaw. ñoo dugg ñii ñii ngi ran dugg nga xam ne macha allah fa tabaarakalla làmb ji demagul fenn waaye mbooloo mi bëri Basiru xoolal moto yi ñëpp a gaare borom moto yi ñëpp a gaare oto yi gaare fële macha allah nit ñi taxaw ci porte bi war a jënd billet. barki démb lañ ko fekk Parcelles Assainies jël ko xale la boo xamante ne làmb na moom nañ ko moom Oninga. <laughs> Oni Ngaaw ngi noonu di doog a dugg si lamb xamante ni parcelle mbooloo la nekk bëre simple moo ngi cay liggéey bi mucc ayib koo gis mu ne ma jiili samay mbokk ma tënk rek bis buñ demal ma dem tay nag nañ ko demal moo taxit ñëw na borom tur bu ñaango ba <laughs> ay jilaas li nga def tey xamoo kenn du duudu borom jilaas production dajale nga fi ndaanaani tey nga xam ne yaa mën a dëgg waaye tey nga xam ne xale yee mën a bëre cey làmb ndeysaan tas yaakaara ngoog ñëwatu na ci làmb ji xale bii dama ko ragal la kii bëre baa yéeme bëre baa yéeme ndeysaan ndeysaan champion yi da ngay dugg si ku wasaare làmb nekk wala gone wasaare làmb ñu njàpp ba ci yow nuyu la saafonteeg yow mbas mbër mi sànq ba tey mu ngi mooy nuyu ndeysaan te mbëru làmb ay jàmbaar lañ jàmbaar maa ngi lay nuyu. naka mu maa ngi lay fay. naka it waaw it yaa ngi nii rek. noo tudd man la Moussa Mbaye may wax Yékini 3. oui. da ngay safoo Wassare la. waaw waaw loolu la sax xam nga rek yéen dañ leen di bëggee saa su nekk ñu ngi juwaal rek toog la mais dañuy nekk fii di bëri ay combat sax ay am naa fi six combat waaw six victoire Yékini 3. six combat six victoire. six victoire. ban écurie ñoom Belende maag Belende ñooy bokk benn néeg ñooy ànd guddeeg ba jëkk ñooy ñoo bokk benn néeg maag moom. lu xew yow six combats six victoires. six victoires gars yi ñoo lekk sama avance te am naa ñu ma samay combat yeegi ne jënd ticket yëpp damay ñëw ba sa kër. loolu laa bëgg si la ñu wax. loolu laa bëgg ma yóbbu la ba kër yeegi ni ñu toog waxtaan maa ngi wax ak moom. bilaa walaay. en direct Yékini 3 xale bii laa doon xale baa nga noonu moom laa doon wër sëñ Bas kii laa doon wër xale baa ngi nii six combats six victoire Yékini trois hey làmb antu siyaar naa la. waaw delloo siyaar bu wër a wër. nga ñëw ci compétition bi journée Djilass production loo yëg. waaw noonu la rek ñu ne ay xam lii lu rafet la quoi xam nga làmb am nga ñëw bërës lu rafet lu naaj la tamit. xam nga ñuul xam nga boo nekkee mbër fa ngay mbabat fa ngay mbabat mënoo mbabat ba mbabat bu nekk mbër loolu moo jiw mënut a nekk ndax boo déggee picc wax ko nee na daa war di mbabat ba yaram oos mooy yoon quoi waaw yu leen waa tasaare waaw yow yow waa wasaare lamb seen liggéey naaj na waaw naaj trop ñu ngi seetaan nag fépp nag saa bu ñu ñibbee mu la ñu seetaan incha allah bi waaw bi ngeen ah bas sëñ bas ba sëñ basiru baara borom njaareem sama gàncax suma lépp waaw ku ma bëgg la parce que sëñ Tuubaa Mbàkke bu baax la kii ku ma bëgg la parce que a Bamba loolu dafa dafa day yàgg lamb njaar lañ xamante boobu ba léegi dafa téye te bay bay a bàyyi parce que sëñ Bamba Mbàkke ku ma gis dama yokk jom billaay walaay mais rafet daal sëñ Bass joxoo ñu lekk joxoo ñu naan ku ne la da rek da ngaa baax yaa bindoon ni tama ñu tëggee ñaari boor sëñ Bassirou borom mbég meeg taar Gora Sock bindu. Boy Baol la. non man maa leen wax bu kii bindoo tey ba léegi nag kii bindoo man maa leen wax xam nga buñ dajee gaa dañ leen boole te buñ leen boole mën nañ leen a aj moo tax man leen bu kii bindoo tey ba léegi nag kii bindu waaye loolu la. tey moo ciy bindu ñoom ñaar. non tey dañoo am suñ benn mbokk bu wàññeeku quoi loolu moo tax ñëwuñu tey waaw loolu la. jaajëf jaajëf waay ji. anamu. Basirou Libou Dore ngi noonu. Serigne Ndiaye doo mu jébbal bu faas keroog mu ñëw terrain gaal gi ñu ne fees na tey mu ñëw lii moo lay wan xale yi bëre rek la ñu gëm lii moo lay wan ni rek la xale yi gëm xale yaa ngi noonu li mu am na singoor bu mu yëkkati ma ngay woote ma ngay woote tey làmb ju neex di ko gis sëñ Bas woote na. Libidor joxe na sengoor ba yëkkati na beneen sengoor teg na ci suuf ay cëmbër ndeysaan cey la tey nga ñëw ci compétition bi bii mooy sa ñaata sorte bi mooy sama troisième sorte benn final la am ñàkk quart final tey nga ñëw pour compétir gis ndaanaan yi fi dajaloo loo yëg waaw lamb ji neex na lamb balaa neex na gis ndaanaan yi ñëw wàcc si mbëri fi nga xam ne yow ndaanaan ku nekk wane sa bopp fa la ndaanaan am na sa combat bu ñuy dégg arène yaakaar la man naa di fal taxaw na waaw taxaw na wa ku tëgg lool Habib l'écran waaw di nga fa ñëw ñu gën cee wax waaw maa lay xaar jili yaa Basiru mu ngi noonu keroog journée bi Yaxya Diop yi ki ñu tëggoon fële ca Mbour stade Clémenane Fall wala stade Caroline Faye bu Mbour élimine François Gomis ko éliminé xale la boo xamante ni bàyyi leen ko xel ci làmb Toubacouta yor na jëmmi mbër toll na ni mbër te ni mu toll kàttan gi ëpp na doole ëpp na loolu sëñ Bas mbër maa lay nuyu. maa lay fay. tey nga ñëw ci compétition bi loo yëg. waa yëg ko ni daan yëg rek si yeneen compétition yi waaw loolu rek lañ ñu ñaan yàlla yàlla may ñu jol ko comme ni ñu daan jëlee yeneen compétition yi compétir la rek quoi mooy loolu noonu. <laughs> champion yi fi dajaloo yëpp gis nga leen. waa champion yi fi dajaloo yi ma yi ma gisagul ñoom ñëpp daan naa leen ma nag ñu ma gisa ñu ñëwagul mais ñi ma fi gis ñoom ñëpp am na fu ma jaar ak waaw. kan moo la a sonal ci lamb simple. fi mu toll nii non fi mu toll nii ma ku ma sonal ndax ñoom ñëpp ku ma si njëkk a daan ku ne daan naa la fekk ji naa la waaw ku ma si ne ñëw naa daanaat la. am na ñoo xam sax maa leen jiital ba léegi dabaguñ ma te ay poids lourd la yu yu ñi ràññee mooy loolu. dinaa fa ñëw seet si la waxtaan. waa ñoo far yow dafa lool. Toubacouta. ne ko lamb simple da laa namm. xale yi dañoo bëgg a gis. dongali Olinga mu dugg si mbër maa lay nuyu. Ah, jili naka waaye sant rek gars yi lamb dañ laa namoon tey ñu gis la ban yëg-yëg waa gis nga xanaa kontaan rek man moom gars yi su ma ci lamb moom chaque jour damay kontaan moom waaw waaw tey moom yëngu-yëngal gis nga yi fi dajaloo yëpp waaw gis naa ko day neex lamb moom champion yi bu bëree rek gars yi lamb day neex wuree rek mu neex waaw waaw bilaa mooy loolu ndeysaan xale la Parcelles Assainies la ne moom Oninga léegi mu ngi ñëw ci compétition bi ci ndaysaan dóor dóoraat la nekk ci keppaaru ñoom Zos keppaaru ñoom Garga Mbossé keppaaru ñoom Ramdan tey ñëwaat na ci compétition bi ndaysaan ñëw na teenay gaal gi perte ñëwaat ñàkk tey mu ñëwaat ci compétition bi lii moo lay wan ni Bas xale yi bëre rek la ñu gëm. ndeysaan ma ngay ñam ci digg géew ba ma ngay ñam lamba yéeme Bougar maa lay ziar eh waaw wasaare ziar naa leen naka rek tey nga ñëw ci compétition bi seetaan si wala da ñëw pour liggéey waaw dañ ñëw pour job si mais dañ xaw a tardé rek mooy loolu waaw non du loolu sax xam nga rek ñun moom suñu yéen a xam job ñoo ko bokk mais amul arrêt quoi tout le temps xam nga rek amul samedi amul dimanche xam nga vie famille sax doo ko am mais yéen tam xam nga rek yéen a ngi ci bi ñëw ngeen xam nga rek marqué seen empreinte parce que bon kenn moomu ko liggéey la rek ku si nekk te xam nga rek liggéey moom bu la kenn teg ko boo ko respecté rek xam nga yaa gën a xam ñu ngi seetaan affaire yi ngi gis a liggéey bi ngeen def waaw. ban sonal la sonal booy ba tournoi bu mu génn compétition bi jël ko lan la. waaw affaire bi wax bi waxoon benn mbër rek mu ne ma Franc dafa ñëw am doole ma ne ko mbëru séeréer mu ne ma du ñu noppaleku te xam nga rek yaa ma gën xam dañuy topp sa mais sport bu mu munti doon tey boo ko respecté maanaam respecté sa entraînement rek li si bëgg da nga wax ni Franc sérieux mais boo ko gisee physiquement état physique am da am satisfaction da xam ne kii mu liggéey loolu liggéey bi moo si ëpp solo ay mbër nga fii di ñëw di compétir mais da nga leen gis da xam ne ñii dañ sonn maanaam dañuy dem ba yaram os te noppale ko bu war si ñoom sax récupération bi duñ ko am. Cheikh Tidiane Niang. kooku champion la la xëy na gabareem mais xam-xamu xam-xamu bëreem li mu yor ci xam-xamu bëre car macha allah bu taay bi tolloon neneen kon beneen affaire lay doon. taay rek la gaay di jooy si moom mais bu ñëwee bu yëngalee gaay kontaan bu bëree gaay kontaan day bëre technique nga xam ne kii li muy bëre technique la parce que day bëre ponkal bëre moom ci xel daan ko kon xam nga kooku mën na bëre bokk la ki nga xamante ne dafa ñëw ak poids di la imposer wala mu lay pousse di la génnee ba bëgg jaajëf suñu confrère la Bokar bu Lutte TV Bokar ndeysaan xale bu baax bu gëm boppam ndax ku ñàkk ki ñaan rek bas weesuwul nga ni gis naa wasaare làmb liggéey bu rafet bi ngeen di liggéey ci làmb waaye moment bi wax ak yow nii booy fay dugg si na sëñ bas booy fay nga noonu xale la boo xamante ni moom it <laughs> ay waay jilaas production li nga def xamoo ko la ilaha illallah waaye bas moment bi ma la wax booy fay foofu gis naa beneen mbër moo xamante ne njaag njaga doole lay wuyoo de ma nga nele njaga doole nga nele ci biti di waaj a takk ngembam tey ndaanaan yi nga xamante ni woon gëj na leen gis ci làmb tey maa leen gis ku mel ni njaga doole mii gis nga ko mu ngi noonu di takk njaga doole léegi booy fay dugg si na njaga la boo xamante ni moom it yàgg na ci làmb waaye mu ngi ciy def liggéey bu liggéey liggéey bu mucc ay ci làmb dégg nga ndeysaan macha allah waaw noonu la demee champion la boo xamante ne bàyyi leen ko xer ci làmb combat am arène dafa jafe mbër moo ko jox avance am mu bañ waaye dara secret mu ngi nii ñëw ci làmb simple yi compétit dégg nga nee na ma tamit xale bu yàgg ci làmb laa làmb yi loolu la ñu nag mbër yi ay doomu nijaay doomu bàjjan lañ macha allah mu ngi noonu di takk sëñ Bas xale baa ngi tey doon na bis boo xamante ni bis bu spécial la ci Djilass Production waaye rawatina ndeysaan soxna si nga xamante ni jigéen bu mën góor la ma nga noonu di dugg si ndeysaan mbay bulum ay bas làmba ngoog bu jëlee micro soxol sedd tamam ndeysaan dugg si na bas kaay ndeysaan ndeysaan maak nu nga muy noonu yaa faya ndeysaan meer faya nga noonu ndeysaan meer faya maa ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu defe naa la. sa relation. yaa ngi may mulum. la kontaan rek. bés bi suñu bés la. parce que suñu doom bu xelee rek. dafa mel ni ñun ñoo xewle. kon kontaan nañ ci bu baax a baax. ndeysaan.